daa ñëpp fii tàmbali yéen ci seen revue de presse til sa kaas gaal gi élection yi ma ni bu doonub course la bu doonu làmm la am na ku tekk ngembam téetéetéet bu doon course la kay am na ku tekk ay dàllam ne dawatuma maa dematul bokkatuma wàcc naa bàyyi naa laa wax yëglekaay gi ne Rose Wardini ci jëmi boppam ne bana ma ni Rose wa faane na yëglekaay gi ne la ko waral sabab ko du leen lu dul coowul double nationalité am li lay du ngayoon ko ci yëglekaay gi ca saf-sàpp laa wax mooy bana bokkatul ci élection yi lee te mbokkoon ci candidat yi nga xamante ni nee leen yéen ñi kat mën ngeen a bokk ci élection yi yëgle du ci yàq dara dara laa wax du tee élection am de le mandat yëgle kaay ni ma Rose awut na ma ni ne bokkatul ci élection yi ñu jëm enquête yëgle kaay ni ma Rose kay sànn éponge ba ne bana wàcc na laa wax les échos yëgle kaay ni ma coowul double nationalité li xamaa xamoo ni waa PDS ci biir bu du feeñ moo ma yëm te jaaxal ma Lamine Thiam yëkkati ay kàddu naa nag de xamal ni am na candidat yu bare bare bari yoo xamante bu nu wattuwul ña ak double nationalité am na sax ñu am triple la ëpp low cey élection présidentielle yi les éco yëgle ni ma mboole seen candidat yépp bëgg laa wax ñu amal ay élection fii ak avril ba mu des ma ne ko kan mu ni ma Amadou Ba Boubacar Camara bun jonn ñoom day ñoom ak idi daa mel ni bëggunu kaay gi wal fajri quotidien ni ma ah am nañu ko yor de waa coalition Diomaye président ñoom nee ñu tee nañu ko ñee ñu taxaw nag naan ana sunu candidat bi kañ lay ñëw sunu leader bi kañ lay ñëw moom la bëgg a xam mooy ñi nga xamante ni ànd ak Karim Meïssa Wade ñoom day nee ñu réunion gauche réunion droite ñun soxla wu ñu lool de li ñu soxla mooy ñu wax nu ana kañ la sunu candidat bii Karim di ñëw ñoom ñi ànd ak Karim day nangu nañu jolok

le président Macky Sall sës rëkk la def laa wax ci miir bi yoo ku sëñ saña nangu rek laa wax nañu dem ca prison ba yëgle gi di yor yor ni ma kaay moo wax la ak fukk juróom-ñett laa wax 118 détenus yoo xamante ne ay prisonniers lañ yëgle kaay gi nee fi ne nii nag lànk kandaar la def nee du ñu lekk grève de faim la ñu de ñoom ña nga xam ne ñoo ne ca kaso Ziguinchor ba yëgle gi nee ñoom nee ñu du ñu bàyyi fileeg amuñu day attaque contre l'ex-Pastef moom Khalifa Sall yëgle kaay gi ma provoqué coow digganteem ak Jomaay Fay tax mboole seen télé yi débat yi réseaux sociaux yi di wax ci moom yëgle kaay gi ma la bëgg nag mooy ñu fàtte candidat Benno bi Libération yëgle kaay ni ma du xam nga docteur Babacar Diop Thiès kaay bennub dëkk ñaari gaar moom ci jëmi boppam nee na waaw waaw nangu naa dialogue de nangu naa ñu dem waxtaani ak njiitum réew président Macky Sall moom ak bokkam ak ñàkk jàllam ci élection yi mu dangoo dem ca waxtaan wax yëglekaay gi ne nanu ko gunge ci jàmm ak salaam moom jitum réew mooy kàddu yamu xamle moom Babacar Diop te naa élection yi nan ko amal ci ni mu gën a gaawe laa wax nangu bu baax a baax dogal bi nga xamante ni moom la conseil constitutionnel jël réew mi ko tijjee yëglekaay ne ma réew ma askanu sunu gaal gi la yi ci jëmi boppam laa wax am na ñoo xamante ni ko gaawal carte gi lépp leer la radiation moo Juan mi lii nag moom mitti na lool ba àgg ci lool ci nga xamante ni ñooy romb ci buntu kër yi roñ mbali di yëgle gi ne gerew la def lànk kandaar ne du ñu fasante xàcc ak morom ma ndax dañuy gerew ndax kat li nga xamante moo di seen àq ak seen yelleef ak la soxla di seen koppar yi leen état bi yoreel daa bari lool te joxuñu leen ko dem nañ sax ba ci banque yi nga xamante ne dañoo leen daan jox lànk nan kandaar ni faaw nu verser seeni koppar su dul loolu duñ leen mën a jox vox populi yégle kaay ne la wax jigéen na a ni ma foofa kay ci jëmi boppam laa wax lan fa nemmee ko yéeme te doy waar délégué ja quartier ba nga xamante ma ngay wóoy ci turu moo ni moom ci jëmi boppam laa wax ci benn bis fi gis na juróomi bébé laa wax ci mbalit mi moo bébé ndax mbalite ko tax a jógam lu ko tax a jóg jur sànni daal ca dëgg-dëgg lu ñaaw la moo bébé yi ku leen sànni ci mbalit mi jar laaj libération yi ma ca kasob si gin ñee ngi laaj seen àq ak seen yelleef ubbil bi 70 détenus yi grève de la faim gi ma la wax léegi de am na ca ay jigéen yëgle gi ne ma ay mineur ak ki nga xamante moo di Amadou Sané maire Diakounda responsable nekk ak moom ne ca ak moom ne ca ak moom ne ca ak moom ba yëg boppam dem wàcc fa ab kaskatam kam ma laa wax yëglekaay gi ne ca Cees la xewe de moom ci jëmi boppam mooy borom kam mi di dem ji jëli kabam fekk fa borom këru soxna si la yëglekaay gi ne ñu gita ngaas moom mu daal jëlu birig daal di tuus borom këru soxna si mu nekk loon yëglekaay gi ne daal di koo mu nekk mbir mu yéeme te doy waar leneen lu doy waar ca tribunalum Ndakaaru Njaay Jal Joob ci jëmi boppam mu yëkkati ab pistolet daal di attaqué employé yo <laughs> loolu doyati na waar sëy laati bu baax xale ba suma clavier ñu dem ba a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel càakin jëf jërë ngeen jëf caageen jëf mbokk yi xarit yeeg jëkkadoo yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi ñuy teewlu saa su nekk rek fii ci Thiès Info euh, di teewlu ak euh, déglu revue de presse bi euh, maa ngi leen di béggee di leen kontaane di leen wax ni doole jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen la yéen ñu ñuy teew un peu partout waaye yow nag yow nag yow kii nag dee sul moom nag ci Thiès kaay la xewe Thiès ah waay lii simbu leexul café am na waaw waaye waxaguma ci café gi simbu leexul gi nañ wax ci lii ba noppi soog a simbu leexul ci café gi sëñ Abdou sa Sarr ay waa ji laa wax waa ji waaw waaw waa ji du wax ci moom ah ah moom nekk na ci jabari jàmbur ba fàtte fa casquette di simbu leexu ci ja euh, di lii leexu di di def lu bon ci jabari jàmbur ba fàtte fa ak kasketam ah wëlbatiku nee day dem jëli casquette ba lu mu ca ah, yow kii nag dëgër na fit de waaye kii kii kii nit ëpp na ko fit ci réew mi ngeen defe ah dama ni daa ni ñetti ñaar ñett ñaa lii moom boo ko dee def sam xel doo juum bu ma ko defee bu ko nit ñi yëgee dañuy kontaan mbaa dañuy mer dee ko def sam xel rek yow xoolal ci journée bi yëpp xoolal deel wax di lii bu ma ko defee ndax bu ko nit ñi yëgee dañuy kontaan mbaa dañuy mer bu dee nii doxaan la xam nga ni buñ ko yëgee duñu bekk ci yow surtout boo amee jabar kon xam nga ni doo ko def bu dee ne sàcc la buñ ko yëgee duñu bekk ci yow surtout nag ngay responsable am ay njaboot bu dee ni def naka suru noonu la buñ ko yëgee duñu yëg bekk ci yow waaye bu dee ni ab liggéey la xam nga ni ku yëg ne yaa ngi liggéey day kontaan ci yow kon chaque jour nit ki bala ngaa def dara ne lii may def nii bu ma ko bu ko nit ñi yégee lu mu may jural dañuy kontaan ci ma moom dañuy mer ci man mi ngoog nag mooy euh, li lu ñuy waxee naan surveillance en soit nit da war di surveiller sa bopp sëñ Béthio Thioune daan na wax naan lii laa war a lekk lii laa war a sol nii laa war a mel lii laa war a nii laa war a doxee lii laa war a wax fii laa war a dem fekk nit kaa koy def jàmm dong lay am waaye waaye doy na waar waay ay ca kon ñu simbileexu ci café gi bu baax a baax a baax naan ci kafe gi waaw 78 la 453 48 86 ngeen ne Aliou Fall Damel kafe laa bugg ma jox leen ci kafe gi ngeen simbileexu ay ca donc mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu mbir mu neex la café gi ñu ko naan ñëpp neen ñu neex na nag ay ca nan dem maa ko diggee maa ne ko commentaire ma tudd saw tur waaw ma maa la wax lii maa moo ne dama koo diggee de am na gaa ma waa Faal est-ce que yow yaa ngi tudd ñu commenté nag ñëpp ma leen maa ko diggee te digge nag bor la fii ku commenté rek di nga dégg sow tur ayca mu ngi mm, euh, ma dem seeti euh, gaa ñi commenté ñëpp nag ayca tuddal tuddal tuddal tuddal tuddal tuddal tuddal ma ne ko ku ma njëkk a gis Cheikh Cheikh Modou Diakhaté Cheikh Modou Diakhaté jaxate kaba yéeli keebaa ja maa ngi koy nuyu bu baax a baax Issa Dang Ngura maa ngi koy bigi Fatoumata Binti Diallo maa ngi koy bigi Pullo maa ngi koy nuyu bu baax a baax Maodo Kane maa ngi koy bigi bu baax a baax daaw Daouda Ñing sama xarit maa ngi lay nuyu café gaa ngi nii simbaleexul Abib fay maa ngi lay bigi bu baax a baax Lamine Ndiaye di bigee famille ñi ngeen gi yëpp rek moo tax warumaa ne fii di lim sax ñëpp laa bigee ñoom ñoom Pape Abdou Sarr ñoom déggal maa ngay lim tafaafaal ñoom sama goro ah mu yéen ñëpp laa lim daal daam kunta maa ngi leen di bëgg Cheikh Omar Diop maa ngi bëgg bu baax a baax a baax sëñ Mbàkke mu yéen ah kan mbay mbay maa ngi lay bëggee Omar maa ngi lay bëggee bu baax a baax prési di Pape Diop di bëggee Astou sama xarit maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko jox waa ci waaye Mia Diouf sama nit la billaay am naa jàmm wallaay asim am naa jàmm merci beaucoup Binta Sarr maa ngi lay bëggee bu baax a baax Michel Tine euh, di bëggee Ibra Kebe Diop ah, euh, maa ngi koy bëggee bu baax a baax a baax a baax di bëggee Baye Modou yàdd di bëggee muudu Laay Bey sama xarit la di bëggee bu baax a baax Soda Mbodj Absa sama xarit la ah manque ngi koy bu baax a baax kii di nee na ma élection par force njàggale ya ko wax de njàggale yi namm naa la nag di si Cheikh Wade di bigge bu baax a baax ma bigge Guèye sama xarit la Abdou Diouf sama nit la borom waajur borom le 24 février nee ñoom dañuy sargal Mamadou Diaga Ngom maire le 24 février dañuy sargal monsieur le maire ndax la mu fa def kenn mësu ko faa def moom Mamadou Diaga Ngom ci final ba waa na mu ko organiser ak na mu tàmbalee liggéey dëkk ba waa waajur nag jóg taxaw ni dañ koy sargal waa lii neex na de liggéey ci sa dëkk ba sa ba ña nga nekk maire ci dëkk di fa liggéey ba waa dëkk ba ni daal lay sargal yombul monsieur le maire mbay Samb maa ngi lay nuyu yow itam borom mbar sama xarit nga ah, waaw sama nit nga maa ngi kii biggee laat Diop anam maa ngi biggee ngañ jaxumpa di biggee bu baax a baax waa Gosaas gi yépp ñoom maada ci mbaleexu leen ci café gi ah waaw kafek ci mu leexu gaa ngi nii acca disponible na ca Gosaas nag képp ku ko yittewoo rek dangay ngay daal di wax ñu jox la te pirum ndër itam kafe ga disponible na fa ca Kaolack ndangaan Sédhiou Matam ci ki coor fu waay ne rek nee ma dammeel kafe laa bëgg naa lijjanti fexe ba mu yëgsi ci yow ay ca mbokk yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci askan sunu gaal jàmm gën jàmm baax jàmm neex jàmm ci lépp xaj boo ko amee da ngay féex day neex paix intérieur xam ngeen ko dinaa leen ko wax bu suba ak jàmm ak salaam lan mooy paix intérieur dëgg dëgg paix intérieur ak lan moo koy joxe ay ca mbokk yi ñu joxante dig daje ba suba ak jàmm jërë ngeen jëf